waaw mbokk yi eh, maa ngi leen di nuyu man la seen frère seen mbokk Demba Cissé eh, di rafetlu nag wax dëgg yàlla eh, visite bi nga xam ne président Ousmane Sonko le président du parti PASTEF di si premier ministre Sénégal def na ko au niveau du Mali il a été bien reçu par le docteur Choguel Koukela Maïga ñu koy rafetlu aussi di si jaajëfal maliens yi suñu mbokk maliens yi bu baax a baax mbokk yi comme ni ko président Ousmane Sonko waxee day li baax léeg-léeg émotion bi ñu dindi ko ñu analyser de manière froide ndax dafa am loo xam ne ci américain yi ligne rouge la ndax képp ku lëkkaloo ak Russie pour augmenter influence russe da ngay daal di nekk automatiquement ennemi américain yi te américain yi boo noonoo ak ñoom ñoom dañoo am ay pexe ak ay moyen te daañu ko utiliser pour déstabiliser la moo tax position wu Sénégal xaw a compliqué xaw metti ci situation bi di leen rappeler ne Afghanistan noonu la fa demee woon ndax ancien wu président Afghanistan moom moo waxoon russi pour ñu ñëw jàppale ko donc euh, Russie sur invitation la ñu demee woon Afghanistan waaye américain yi ñoom comme bëgguñu woon Russie am influence géopolitique ak militaire ci région boobu ñoom ñu daal di jël ki nga xam ne mooy Oussama Ben Laden formé par la CIA armé par la CIA ñu jàkkaarloo ak Russie yi jàmbaarloo ak Russie yi ba finalement Russie yi mujjee dem même chose tey moom lañu am au niveau de l'AIS ndax dëgg la metti woon na trop ci AIS te ba ñuy nekk ci ay coono jihadis yu sonal leen gis ñu kenn ku leen dimbali du États-Unis du du Union européenne jàppale leen loolu dëgg la situation yi boo ci tolloo effectivement yow képp ku la jàppale rek maanaam danga nga ciy dem moo tax ñu naan euh, ndox mi fay lakk kenn du xool ndax ndox moomu set na wala setul ñoom foofu la ñu tolloon waaye tamit boo nekkee état doo nekk ci émotion dangay ngay anticiper lii bu ma ko defee lan moo ci mën a fekk lii bu ma ko defee lan mooy conséquences yi kon ñoom waroon nañoo xam ne bu ñu lëkkaloo ak Russie conséquences yi mooy États-Unis dana jóg taxaw ànd ak Union européenne te lépp lu ñu mën ci destabilisation daañ ko def te yàlla xam na ne am nañu moyens yi am nañu pexe yi. Sénégal dëkk bu tuuti la. Sénégal bu Amérique bëggee jóg def ay ñaaw ñaawteef ànd ceeg Union européenne Sénégal mënu leen ko tere. ndax amuñu moyen bi amuñu influence bi d'ailleurs loolu moo taxoon président son excellence ba Diomaye Faye ne woon sunu mbokku maliens yi burkinabé yi ak nigériens yi ñëwaat leen ci CEDEAO bi ñu toog ñu waxtaan ndax am na yoo xam ne waxtaan rek moo ko mën ndax doole mënu ko ndax doole boobu amuñu ko une guerre est tellement coûteuse ndax dëgg la Russie jox na leen ay chars de combat jox na leen ay drone jox na leen lu ne waaye est-ce que mën ngeen a tenir sur un an sur deux ans une guerre ak guerre nu mu nu mu nu lu mu laajee dépense lu mu laajee ay munitions li muy laaj ci kérosène li muy laaj ci essence ci gasoil est-ce que les pays de l'AES mën nañu tenir sur la durée sur le long terme Ça, c'est une véritable question. C'est une vraie question. man ma jàpp ne ñoom tey du seen avantage ñoom ñu continuer di entêté wu pour bañ a waxtaan continuer rek bëgg a lëkkaloo ak Russie jàmbarloo ak ki nga xam ne mooy Amérique avec le bloc occidental loolu du seen intérêt dëkk yi ko mës a def yépp génnuñ ci gis nañ fan la ñu mujjee te li nga xam ne moo xaw a doy sax ci ànd ak Russie man li may reprocher les Russes li ma leen di reprocher mooy Patrice mbaa dafa àndoon ak ñoom au temps de l'Union soviétique ñu amoon doole militaire waaye Eisenhower Eisenhower ancien président États-Unis ba muy jël décret bi ci Maison Blanche pour ñu rey Patrice Lumumba mais ana Russie fan la Russie nekkoon ba ñuy dem di jàpp Patrice Lumumba jàpp ko rey ko rey bu ñaw ana Russie te pourtant Russie la àndaloon est-ce que Russie protégé na ko. Kadhafi ba ñu kay fekk dëkkam di bombarder dëkkam di ko jàpp ana Russie ana Russie ak Conakry ba nga xamee ne Sékou Touré ànd na ak Russie ñu nekk ay partenaires. tubaab yi jël foo ay faux billets en milliards di ko dugal biir Guinée pour nërmeel seen seen économie ana Russie fan la Russie nekkoon parce que man loolu laay reproché Russie ndax man bu ñu nekkee partenaire samay noon di ma fexeel da ngay ñëw taxaw fexe ba loolu du antu waaye am na fu ñuy tollu Russie day seetaan day toog seetaan loolu nag man moo ko gisee ci histoire ah damay xoolaat bu baax kan laay lëkkaloo ak naka laay lëkkaloo ak moom. ba ci bassar al-Assad ci la Russie fippu ci la Russie fippu ci Bachar al ne du ñu bàyyi ngeen éliminer ko waaye finalement da ngay gis ne dëkk ba dañu ko xaaj autant nekk fii Russie nekk fële bombardement fii bombardement fële dëkk boobu nekkul ci jàmm est-ce que ñun loolu la ñu bëggal Mali Burkina ak Niger déedéet ndax dëkk yi c'est des pays frères ñun li ñu bëgg mooy ñu am jàmm. li ñu bëgg mooy ñu avancer parce que ñu avancer mooy njëriñu Afrique waaye yoon bii ñu jël baaxul ku leen bëgg nang leen ko wax ne leen yoon bi ngeen jël baaxul seen and bi ak Russie du ngeen ci jëlee ndam ndax Amérique du ko seetaan OTAN du ko seetaan Amérique du ko seetaan OTAN du ko seetaan te bokk yi moytul ma noon boo xam ne dafa am ay moyens illimités yor ay pexe yoo xam ne yow amuloo ko moo tax Sénégal lim ci mën rek lim ci mën mooy waxtaan ñu waxtaan ak sunu frères yi ne leen dellu siwaat leen ci CEDEAO bi à partir de CEDEAO bi ci la ñu mën a manœuvrer pour jéem a ut jàmm ndax moom mooy organisation bi nga xam ne reconnaître nañ ko sur le plan international dëgg la manquement yi am ci CEDEAO ñëpp xam nañ ñëpp xam nañ ko manquement yi am ci CEDEAO ñëpp xam nañ ko dund nañ ko CEDEAO des chef de l'État moo fi amoon CEDEAO boo xam ne influence occidentale bi moo nekk ci biir moom moo fi am waaye boobu Macky Sall la te Macky Sall moom ñëpp xam nañ ne moom lu Macron wax loolu loo wax te yàlla dimbali nañu ba ñu am ay président ay jeunes yu intègre yu am fit yu xam fu ñu jëm tey maliens yeeg burkinabé yeeg nigériens yi mais nañ ñëw ci CEDEAO bi ànd ak ñooñu ñu toog xalaat réfléchir xool nu ñuy def tey Sénégal loolu leen mënal waaye ñoom loolu bu ñu ko nanguwul Sénégal bu leen ne mën na leen protéger contre les États-Unis loolu du dëgg amul kenn ku leen mën a protéger contre la puissance de feu et stratégique des États-Unis amul du Russie du Sénégal du benn dëkk ndax xeex bi nekk ci diggante États-Unis ak Russie képp ku ci xamul fan ngay taxaw bu dalee sa kaw wallaay di nga xam ne lépp dëgg la ndax ñun ñoo warul nangu ñaari puissance ñaari block di xeex yow sa intelligence war la may nga trouver positionnement bu baax bi nga xam fan ngay taxaw yow nga dem taxaw fi nga xam ne après ay ay dégâts collatéraux yow dégâts collatéral ngay doon loolu aussi wax dëgg yàlla nañu ko wax te dee ndax loolu mooy dëgg fi sunu mbokk malien yi taxaw baaxul ndax Russie mënu leen a protéger contre les États-Unis ndax gis ngeen jihadistes yi nga xam ne ñu ngi ñu ngi attaque suñu mbokku malien yi bis bu ñu leen joxee ay drone kamikaze yu mën a survoler yu mën a yéeg bu tiim Bamako fan la suñu mbokk malien yi jëm américains yi joxaguñ leen dara joxaguñ leen yenn puissance de feu te mën nañ leen ko jox du dara ci ñoom pour ñu jox leen ko moo tax nañuy waxante dëgg position Algérie ñëpp gis nañ ko ndax algériens yi ñoom dofuñu bay noono bay noonook américains yi algérie algériens yi dofuñu bay noonook américains yi moo tax bu jaree trahir maliens yi pour ñoom ñu am jàmm par rapport ak yi dañ koy def loolu mooy loolu mooy politique yàgg naa leen ko wax nee naa leen politique affaire u dëmm la du affaire u nit c'est du cannibalisme pur moo tax c'est triste c'est un peu triste ce qui se passe ndax Mali ñëpp ku yéene jàmm ñëpp ku yéene jàmm waaye ñoom it dañu yéene seen bopp jàmm mbir mi du mbir mi du man du man maay guerrier mbir mi du affaire xam nga euh, euh, bombe sa torse yëkkati say épaule déedéet mbir mi c'est beaucoup plus complexe que cela te chef d'état bu ne na nga xool sa askan na nga bàyyi xel sa askan kooku c'est très important chef chef d'état bu ne na nga bàyyi xel sa askan kon sunu mbokku malien yi Burkina bi ak Niger dañ leen di ñaan ñi dellu siwaat ci CEDEAO bi bañ a trop ci Russie jàpp ne Russie mën na leen a protéger loolu erreur la erreur stratégique la bu ko defee maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen jaajëfal bu baax a baax di ñaanal son excellence le président Bassirou Diomaye Faye ainsi que son premier ministre chef du gouvernement Ousmane Sonko yéen bi oyof ci ñoom ba fépp fu ñu jëp bëgg jëmee Sénégal rek incha allah mu yegg jërëjëf.